salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki groupe Arahma ñu ngi leen di nuyu di fas yéene dikkaat ak yéen ci seen tomb ba am solo bi di xam-xam ak lu ci ajo xam-xam nga xam ne mooy li nga xam ne ci la nit ki jaare mën a jaare am tex ak àdduna am tex ak àllaaxira rawatina xam-xam bii di xam-xamu sariya suñ mbokk mi di Cheikh Mouhamad Amin Diop nekk sàkkatu xam-xam fële ci Arabie Saoudite di ko amal sak altene ci waxtu wi kon mbokk yi bisimilah ñu teewlu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah salaam wa rahmatullahi wa barakaatu waa mbokk yi ci daara ji arrahma ñu ngi leen nuyeen ñëpp di leen ziyaar di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko di jël nuyoo di ko jox Serigne sambu mu jàllal leen ko ci membre yëpp yal na yàlla def barke waaw kon incha allah taala comme ni ko sëñ Samb waxee rek ñu ñëw dellu siwaat ci jataay yi ñu amal ci bis bu ni mel di wax ci li nga xamante ni mu aju ci sàkku xam-xam Euh, defoon nañ ci ay jotaay yu weesu woon bii passé ñu ngi yemoon ci li nga xamante ne mooy aadaabu taalibul ilmi mooy teggin yi nga xamante ni nit ki buy sakku xam-xam daf ko war a tegginoo waxoon nañ ci am na teggin yoo xamante ni dafa aju ci xam bi ngay sàkku am ci teggin yoo xamante ni diggante kii sàkku xam-xam ak kam koy sàkkoo am ci teggin yoo xamante ni ci yeneen mbir la aju ñu ngi yemoon nag ci teggin yi nga xamante ni dafa aju ci xam-xam bi ngay sàkku waxoon nañ ci li nga xamante ni moom mooy al ixlaas bi nga xamante ni lu mënta ñàkk la mooy sellal te borom bi subhanahu wa taala rek tax kon wax dëgg yàlla waxoon nañ ci ci faram fàcce lu yaatoo yaatu kon incha allah tey jii dinañ ñëw yeggale ci li nga xamante ni mooy ci point boobu di ñaan yàlla subhanahu wa taala ma defal ñu tawfiq kon mbokk yi li nga xamante ni mooy as sabru te mooy muñ lu mënta ñàkk la muñ lu mënta ñàkk la ci sàkku xam-xam moo tax wax dëgg yàlla tomb bi rek muñ mënon nañ ci wax daanaka fi ba jotaay bi di jeex ak jotaay yi di ñëw motax borom xam-xam yi talif ci ay téré téré téré waye comme dañuy teunk rek dañuy junj rek en tout cas li ñuy wax moy delo nit ki ci téré borom xam-xam yi nga xamanteni ñoy wax ci walu muñ ak naka lañ doon sàkku xam ak sacrifice biñ doon def motax ben borom xam comme ni koy waxe moy Abdul Karim khudair Cheikh Abdul Karim Khudayr xafidahullah mu nek borom xam bu ñu xam bu mag ci ilmul xadis nee na yi nga xamanteni ñoo jugge ci borom xam-xam yi ñëw di nettali borom xam-xam yi ni ñu daan sàkkoo xam-xam ak nañu daan sonnee mu ni càllale yooyu bu fekkul woon ni lu wér la kon mën nañ ni wax dëgg yàlla lii du dëgg waaw bu fekkoon ñëwul ci ay càllale yu wér maam doomu aadama boo ko imaginer nga naan lii du dëgg maam sacrifice bi ñu daan def bàyyi seeni soxna bàyyi seeni doom bàyyi seeni i àndandoo waaye tukki ay dëkk ak dëkk ngir resaay ngir maam confirmer rek ci benn xadit ndax xadit bi diwa ko wax wala wax ko ndax yaa ko nettali xadit bi tukki bo xamne jamono yoy ay dox la daan doon wala war li nga xamanteni moy ay fas wala ay mbam ngir dem di confirmer wu ci ben hadith rek wax deug yàlla kon lolu nekkoon lo xamanteni lu am solo la motax julit bi bu delloo ci li nga xamanteni moy siyaru salaf sen dundin ni ñu daan dundee ci sab xam-xam da ngay gis ni wax deug yàlla dina jëriñu lu bari bari bari motax Abu Hanifa rahimahullah taala doon wax non don wax lu ni mel. نان لي خمنتيني موي سير الصالحين سير الصالحين دون وهن احب الينا من الفقه بس الفقه دف بل اي ورنتي كي دنا لي لا كينان لي لا كينان لي بو ديفول دانك يني ورنتي من وول سخول مي جانغ ليغا خمنتيني موي يونو ماك ني باخ ني تي ليغا خمنت نون لاني دون جا ساكو خام خام اك يون بين جان توب يالا ور يالا فا نيك لو خام لو مونتا نياك لا باسكو جولي داف تي دوليكو يالا واخون يونتي مي نيكو لقد كان في قصصهم عبره لاولي الباب waaw seen histoire ay waar ñoo ci nekk waaye ñi nga xam ne ñooy borom xel yi kon la ñuy wax rek ci point bi mooy dañuy delloo nit ki mu dellu ci téere yi nga xamante ni borom xam-xam bind nañ ko ci wàll li nga xamante ni mooy muñ ak naka la borom xam-xam yi doon sàkku xam am na ñoo xamante ni jaraloon na leen sax ñu bañ a takk jabar am na benn téere bu ñu bind tuddee ko al ulama alladina aatharu zawaaj alal aatharul al ilm ala zawaaj borom xam yi nga xamante ni dañoo gënale li nga xamante ni mooy xam-xam ci ci takk jabar nga am kenn denc jabar alimam Buxaari rahimahu taala bokk na ci ñu tudd takkul soxna ibnu taymiya rahimahu taala al imaamu nawawi ibnu jarir tabari ibnu al ambaari ah ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ñu bari lañ ngir xam-xam biñ doon sàkku ak occupation bi nga xamante ni moom lañ occupé woon kon la ñuy wax rek wax dëgg yow yëpp dafa bokk ci façon muñ yi nga xam ne dañ koo muñoon waaye moo tax taala fayee leen li mu leen yëkkati li nga xamante ni moom mooy seen wax dëgg yàlla ba seen xam-xam tey ñu bari ci jariñoo ndax bokk na ci li gën ci nit ki di bàyyi bu génnee àdduna jëfi boppam lu koy jariñ mooy xam-xam al ilmu naafi comme ni ko yonent sa waxee ida maata bnu aadama inqataa amaluhu illa min thalath sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafau bihi gis nga xam bu ñuy jariñoo moo tax ba tey ku ci tudd seen i téere rek ni al imam buxaari rahimahullah yàlla xam ban lamiñ mooy nangu imaamu nawawi rahimahullah ibnu jarir tabari rahimahullah ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon la ñu bëgg wax mooy muñ lu mënta ñàkk la ci li nga xamante mooy sàkku xam-xam ndax ki dàq muñu rek moo lay gën a yegg ci li nga xamante ni moom mooy mbir yu kawe yi. comme bokk na ci teggin yi nga xamante ni ki sàkku xam mu taqoo ko mu nekk bu am solo bal bu mënta ñàkk mooy as-sabru moom mooy muñ muñ mbokk yi dafa nekk loo xamante ni lu lu metti la. waaye nag jaam bi day jéem a góorgóorlu xar tànk tubayam xeex ak bakkanam ba muñ ci li nga xamante ni moom mooy li muy jàngoonteeg buy sàkku xam-xam xam ngeen tey ki sàkku xam-xam day nekk koo xamante ni ku ranké la rawatina jamono ji parce que nit ñi dañoo dem ba favoriser li nga xamante ne mooy wàllu poñetum àdduna moo tax kii sàkku xam-xam wax dëgg yàlla day nekk koo xamante ni ku ranké la ku raar la ci li nga xamante ne mooy société bi muy dund bu ko defee nag faaw nag mu takkook li nga xamante ni moom mooy muñ rawatina mbir ma nga xamante ni mbir mu muy sàkku mbir mu la moo xamante ni mbir mu yombul la yàlla mu ne inna sa nulqi alayka qawlan thaqilan موت الامام مالك رحمه الله تعالى دون واخني خم خم بيني خم خم لا بوخم دا فا لاج مون نده وتعالى تا دا فا بوك تي ليغا خامتيني دا فا بوك تي معالي الامور مير يو خامي مير يو كاوي لا تا كيب كوي ساكو مير يو كاوي واخ دغ يالا ديغا لا ديغا تاكو ليغا خامتيني موي مون خول رك كيغا خامتيني موي موي لم lem bi nga xamanteni yamb mom mokay lan mom mokay genné xol fi mi jaar ak dejj nga xam ñokay jëm parce ba fa bëgg loo xamante ni lu cher la bëgg lu am valeur kon faaw nag mu muñ dëj ji koy jam ak yoon bi muy jaar buy xëcc li nga xamante mooy lem gi kon nim ci sonnee waxantuma la yow mi nga xam yaa ngi sàkku li nga xamante ni dafa aju ci waxu borom bi subhanahu wa taala ak waxu yonente bi alayhi salatu wassalaam moo tax waa ji waxoon ni laa taxsabanna al majda tamran anta akiluhu lan tabluga al majda xatta talaqa assabira assabir mooy ba façon li nga xamante ni mooy dawaa boo xamante ni bu wex xatt la waaw comprimé la boo xamante bu weex xat kon la mu bëgg wax rek mooy bul jàpp ni li nga xamante ne mooy teranga tàndarma la boo xam ne da ngay tooy di ko lekk déedéet mu ne nag doo ma sa egg ci ñoom mbaxtal ga ba keroog ba keroog ngay takkoog li nga xamante ne mooy muñ ba keroog ngay naan garab ga nga xamante ne garab gu wax xat la kon la ñuy wax rek mooy nit ki faaw mu takkoo li nga xamante ne mooy muñ moo tax aayat yu bari ci alquran ak ci sunna yonent bi salaam di ñëw di dénk nit ki li nga xamante ne mooy muñ yàlla mu ni yaa ayuha alladina amanu sbiru wa sabiru ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ايان واي گمني نانغين موغ واي نانغين موغلنته كون ليغا خامتيني موم موي موغ لو مانت نياك لا يونت بي عليه السلام واخون عجبا لامر المؤمن من دمي ييمو تي ميرو جوليت باسكو ميرم ييب يو لا بوكال مبكت دالي مو كونتان لولو نيك يو واي تاميت بوكا نخار دالي مو موغ لولو نيك يو ورا يالا منو انما يوفى الصابرون اجره اجرهم بغير حساب ëllëg yàlla dina fay muñkat yi li nga xamante ni yool boo xamante ni bu amul rek la kon li nga xamante mooy sàkku xam-xam lu mënta ñàkk la rawatina sàkku xam dafa laaj beneen mbir bu ñu tuddee sacrifice mooy at tadxiya faaw nag nga muñ bàyyi bànneexu àdduna yu bare bari bay lépp loo xamante ni bakkan daf ko bëgg nga bàyyi ko maam xoolal ki sàkku xam-xam maam waxtu yi muy toog di lire di gëstu di bind ah di leeral di jàngale waxtu yooyu yëpp waxtu la yoo xamante nit ki mën na dem parce que ba doomu aadama bakkan li mu bëgg rek mooy jàmm ak bànneex kon nag yow nga not sa bakkan xeex sa bakkan ba waxtu yooyu yëpp nga sellal te yàlla rek tax di bind di liir di gëstu ah di di résumé wax dëgg yàlla di tari di jàng di mokkal kon loolu dafa laaj li nga xamante ne mooy muñ parce que am na ñeen ñoo xam ne ñu nekk ci yeneen te seytaane loolu la gën a bëgg waaye yow nga nekk ci li nga xam mooy jihaad ci yoonu yàlla soo wa moo tax ki nga xamante ne mi ngi jàng xam dafa nekk ci jihaad kon jihaad bi gën a rëy tey mooy jihaadu nafs xeex sa bakkan ba sàkku li nga xamante mooy xam-xam lépp loo xamante nit ñi ngi koy def dem di taxawaalu nekk ci yeneen ak yéen yow nga muñ loolu toog euh, gagné li nga xamante mooy sa temps organiser ko di sàkku li nga xamante mooy xam-xam te defoo ko te lenn rek taxu lu dul borom bi subhanahu wa taala kon dafa laaj li nga xamante mooy muñ kon ki nga xamante ne taxoog muñ kooko wax dëgg yàlla euh, dina jafe mu continuer am na ñoo xamante ni wax dëgg yàlla tàmbali nañ ci tàmbalikaay boo xam bu baax la waaye ñu dem ba ci biir mbir bi mu jafee ñu dellu ginnaaw te mbir mi du loolu a muñ ma kéro ñu wuy ji borom bi subhanahu wa taala kon muñ bi ni borom bi tudd ko ci li nga xamante moy suratul asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr kon dañuy dénkante li nga xamante ni moom mooy muñ bokuna ci teggin yi nga xamante ni kii sàkku xam-xam daf ko wara bayyi wala xel mu nekk lu am solo lol lol lol lo xamanteni tay ñu bari wax deug yàlla danaka buñu ñu am tawfiq bokku na ci la ko waral moy moy borom bi subhanahu wa taala motax teggin boobu moo lañ tuddee dawaamul muraqaba mooy nga taqoog di sóoraale borom bi subhanahu wa taala ci li nga xamante moom ngay def ci li feeñ ak ci lu nëbb bañ a tabbi ci li nga xamante ne mooy mooy borom bi subhanahu wa taala xam ni yàlla xam-xam bii leer la te leeru yàlla kenn du ko defal koo xamante ni ab mooykatu yàlla la waaye koo xamante ni xolam sell na mu jaar ci yoon bi mu war a jaar yàlla mooy moo koy barkeelal kon wax deug yàlla nit ki bokku na ci li ëpp solo mu koy bàyyi xel moy muy sori li nga xamanteni moy moy mooy yàlla ak bu mënti don nak mo xam bu ndaw la moo xam bu mag la mo xam jëw la mo xam fen la mo xam lekul lewul la rawatina lekul lewut waaw da waji nga xamanteni mo nekkon han ci àll ba nekk ku rafle karaw gi baramu pënd mu naan ya rab ya rab di ñaan yonente bi ni ki ni limu sol dafa haram han limi lek dafa haram limi nan dafa haram mom sax ci lu haram wa xudiya bil xaraam moom sax ci lu xaraam lay dund mu ni fa annaa yustajaab la naka lañ koy nangulee ñaanam ni ki noonu tamit kii sàkku xam-xam di lekk loo xam ne lewul lay naka la ñuy barkeele xam-xam kon li nga xamante mooy sóoraale borom bi subhaanahu wa taala ci lépp nit ki def ba bañ a ba sori mooy yàlla bañ a tabbi ci loo xam naka sudul noonu loolu tamit bokk na ci teggi ni nga xamante ni lu ta ñàkk la ndax xam-xam bi dafa sell xam-xam bu leer la moo tax bayte yooyu ñuy askanali Shafii mu waxoon shakawtu ila wakiin sua xifdi وارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي من جنباتنا تي وكيع كوم ني نيتال الاسوار بي ني دا فام بن جيجن بوخ دا فا رومبون سيرم دادي خاوا غيلاو دات كوي بوس مو دات بتم دا تي تيغي ناخ ني الامام الشافعي رحمه الله هو منو موكل بو دان موكل صاح داي تك بن لوخو بي تي بنن باج بي سينو بوكو لولو منوتول ام ابار ci la daal di wax li nga xamante ne mooy poème yi chakawtu ila wakiin sua xifdi wa arshadani ila tarki almaasi wa axbarani bi anna al ilma nuurun wa nuurullahi la yuhda li aasi mooy euh, jàmbat naa ci wakiya ab sëriñam la woon ni ko man daal sama mokkal gi may mokkal léegi dafa dafa xaw a doy waar mokkal bu ñaaw daal lay mokkal mënutuma mokkal kon ni ma daan mokkalee nee na mu daal may orienté ni ma na nga bàyyi mooy yàlla bu fekkee ni bëtam moo tabbi ci loo xamante ne ko waxantuma laa nag ñun ñi nga xamante te tey dañ ñoo nattoo <laughs> réseaux sociaux yi wallahu almustaan bokk na ci li ñuy gàllankoor ñun ñu baree bari ci ñun xamante ni da ubbi ab page sax ab page boo xamante ni eh, benn publicité mooy ñëw waaw du sax fa soo bare mais publicité mooy ñëw jigéen nekk nga xool ko wala ci whatsapp bi tey réseaux sociaux yi photo yi wallahu almustaan doy na waar doy na waar loolu moo tax mais nit ki nag day mujaahada ak nafs xeex ba kanam ci kéem kattanam yàlla subhanahu wa xam na li nekk ci li nga xamante mooy xol yi lañu bëgg wax rek mooy julli bi di xeex li nga xamante ni mooy bakkanam ba moytu lépp loo xam mooy yàlla rawatina xool lu bon ak garaw xool lu bon dafa nekk loo xamante ni sëhm la waaw ab xeej la boo xamante ni daanaka bu doy waar la bu la dalee rek nga sànko moo tax euh, ñu bëri ci julli ñi war a def attention baax a baax rawatina ci ay photo jigéen ñi envoyante di ko xoolee yëpp dafa nekk loo xamante ni Euh, dara saxu ci lislaam waaye jullit sax war na jomb loolu def lu ni mel ala kulli xaal mooy yàlla subhanahu wa taala fa nekk pakk boo xamante ni day gàllankoor ki nga xamante ni mooy sàkku xam-xam moo bi faaw mu sóoraal loolu xam ne fépp fu mu nekk yàlla subhanahu wa taala ngi koy gis mu bàyyi xel ci loolu ngir yàlla barkeelal ko li nga xamante ni mooy mooy xam-xamam euh, kon loolu lu mënta ñàkk la kon mbokk yi li nga xamante ni mooy organiser waxtu lu mënta ñàkk la parce que li ñuy wax na al waxtu dafa mel li nga xamante ni mooy kas sayf ان لم تقطع قطعك وقت دا فمل ليغا خامتني موي جاسي بوكو داغول رك مو دوغلا كون آه، جوليت واخ دغ يالا بو فكين اورغانيزي وقتوم سي دير بو غات ان شاء الله تعالى بو يالا دفلي اك توفيق اك اوبي اك جابندال من نتي مانغ لو خامتني لو باري باري باري تي خام لا كون داي لاج رك اورغانيزي ليغا خامتني موي وقتو waaw bu fekkee ni journée bu jullee fajar par am na lu mu war a def bu fekkee day liggéey ah mu taxaw li nga xam mooy ay ah mu liggéey bu wàccee tamit mu am waxtu boo xam ne daf koy jagleel maam te aussi tamit li nga xamante mooy sax maam sax lu am solo la mais tey nga jël lii suba lee ginnaaw suba déedéet mais amal loo xamante ne lu sax la waxtu boo xam bu sax la nga ni journée bi da am naa ci 24 heures ngal la waaye boo ci jëloon benn une heure temps une temps sax bari na supposons nañ jël ak 30 minutes fexeel ba am 30 minutes yoo xam ne yu sax la ci journée bi wallahi alladi laa ilaha illa hu boo ko defee benn weer boo xamante ne bu sax normal trente mille chaque jour nga taxaw loolu di nga gis ne am na lu bare bari bëri mais tey ñu bëri wax dëgg yàlla dañuy am jàngantu def ak taalum tey ñu jël lii suba jëlee mën nañ am xamaasa am xër waa benn bis ñëw rek ñu daal di xër am xër déclenché ni waaw man damay def li damay def lee mais duñ continuer ci lool parce que ak sabaat sax nag lu am solo lu mënta ñàkk la moo tax foofu lañ fay wax rek mooy di soññ suñu bopp soññi soññi bépp mbokk julit ñu góorgóorluwaat ci li nga xam mooy waxtu bi ak organiser bi koy organiser ngir ñu mëntee jariñu loo xamante ni lu bari bari la bu ko defee incha allah ci diir bu gàtt rek yàlla ñu defal tawfiq ñu daal di am li nga xamante ni moom mooy euh, xam-xam boo xamante ni incha allah taala xam-xam bu euh, barkeel barkeel lay doon kon li nga xamante ni rek mooy jëfee xam-xam lu mënta ñàkk la moo tax borom bi subhanahu wa taala waxoon ni yaa ayuha alladina amanu lima taquluuna maa la tafaluun kabura maqtan inda allahi an taqulu maa la tafaluun kon ki nga xamante ne mooy jàng xam-xam ba pare du ko jëfee kooku day dugg ci li nga xamante ne mooy mooy aaya bi lima taquluuna maa la tafaluun kabura maqtan inda allahi an taqulu an taqulu maa la tafaluun kon ki nga xamante ni mooy jàng xam-xam bokk na ci li nga xamante ni moom la war def mooy mu koy jëfe parce que ki nga xam dafa jàng pare du jëfe di def safaan wi dafay dugg ci ki nga xamante ni mooy di def di wax loo xamante ni du ko def li ma taquluuna ma la tafaalun kabura maqtan an inda allah an taqulu ma la tafaalun kon bàkkaar bu mag la ci borom bi subhanahu wa nit ki di wax loo xam du ko def te kon chaque jour yaa ngi jàngale yaa ngi yee nit ñi yaa ngi sàkku xam-xam wax dëgg yàlla da ngaa war a taxaw ci loolu du ko jëfe sa kéem kàttan kon loolu lu mënta ñàkk la bu ko defee noonu la euh, gaa yu baax yi saxaaba yi ak ñi nga xamante mooy asalafu saalih ak borom xam ñu xam lii moo taxoon seen xam-xam sax mooy dañ daan jàng di te kon xadis ma la sànq xadis bu raglu la ki nga xamante ni dafa nekk fii ci àdduna di jàng xam-xam waaye tamit du ko jëfee wala day jëfee safaan wi ëllëg yawmal qiyaam wax dëgg yàlla tan daliku aqtaabu bat batnihi waaw ay butitam dañuy wëndeelu ci li nga xamante mooy biir jahannam di jëri jëri loolu la ko waral mooy li mu waxoon mooy dama daan digal nit ñi lu baax du ko def waaye tamit di leen tere lu bon di ki di ki tàbbi yàlla nañu yàlla musal ci lool kon incha allah taala ñu ngi yem foofu ba bii di ñëw euh, li ñu jotoon ci waxtu li ñu joxoon ci waxtu bi jeex na di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu tawfiq te barkeel euh, wallahu taala ala wa alam لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من